1er octobre 2021 au 31 mars 2022, la ville de Dubaï va abriter l'exposition universelle Dubaï 2020. alhamdulilah ñu ngi nuyu mboolem ñi nga xamante ne ñooy auditeurs yi ak ñi nga xamante ne ñooy seetaan rafetlu bu baax lii nga xamante ne déplacement bi pour ñu waxtaan lii sunu mbébét ak sunu ay naa ci exposition bu mag boobu àddina moo fay daje àddina nag su dajee ku ne day indi la nga xam ak la nga man séentu tamit ña nga fay dajeel ñi nga xam ne dinañu am intérêt ci li ngay liggéey ba mën ci tam def seen doole loolu moom mooy intérêt wu exposition Dubaï ñu bare dañuy defe ne exposition foire la du foire exposition loolu moo tax ñun suñu ministère buy ministère bu am importance bu am solo ci doxalinu réew mi Sénégal war fa dem taxaw pour wane sunu xarañte wane tamit sunu ay projet te projet yooyu moom muy yi nga xamante noonu la ñu war a dëgmal pour yokk li nga xamante ne mooy xar kanamu artisanat muy xarala ci Sénégal pour que mu mën a nekk moteur du développement comme ni ko président de la République Macky Sall yéene moom mooy un élément locomotive bi nga xam ne moom mooy yu puus xëcc li nga xam ne mooy li des ci art ci économie wu su ñu demee am na euh, lu ñuy wax euh, xar kanam yu bari am na benn xar kanam boo xam ne am na fa déjà ña nga fa moom mooy man-man ak xaralawu sénégalais yi xarañte bi nga xamante ne am nañ ko déjà am na ñu xam ne ñu ngi ci exposition permanente depuis le début maanaam depuis juróom-benn weer yi nga xamante ne exposition bi yëpp am na artisan sénégalais yi muy acteurs yi dans les différents domaines ña nga fa di wane seen xarañte tey muy cordonnerie muy euh, tapisserie muy yeneen ak yeneen yëpp ñu ngi ko fay wane waaye ñun liñ fay gën a yóbbu ñun moom mooy sunu stratégie man lan la ñuy dëgmal ci at yii di ñëw pour artisanat mën a egg fa ñu soxla ak transformation également du secteur informel moo tax mu am ñaari stratégie yu mag yi ñu tëgg benn bi mu tudd stratégie nationale de développement de l'artisanat mooy mbooleem naa yi ñu teg ci juróom-benni at yii di ñëw pour yokk artisanat beneen bi muy stratégie nationale de transformation du secteur informel boobu moom it nan la ñuy def ba ci juróom-benni at yii di ñëw ñu teg lu nga xamante ne day permettre ñi nga xamante ne dañuy nekk ci secteur informel bi ñu formaliser leen muy nag ñaari stratégie yu am doole yoo xam ne ci biir dafa am yoo xamante ne dañ koy tudde ay programme ak ay projet programme ak projet yooyu nag la ñuy wax ak wan ñi nga xamante ne ñooy suñu ay partenaires potentiels pour que ñooñu tamit ca la ñu man ñu ñëw ci ci leen intéressé ñu ñëw jàppale ñu ci. mooy bokk na ci li ëpp solo ci li ñu yóbbu maanaam. war nañu dem foofu suñu wanee suñu xarañte wane tamit suñu ay bëgg-bëgg wane nag teg nañ tam yan programme la ñu war a teg projet yooyu nag suñ ko wanee dinañu mën a waxtaan li ñuy wax ay réunion b bi maanaam waxtaan ak ñëpp waxtaan tam ak ay ñi nga xam ne Sénégal intéressé na te Sénégal moom wax dëgg pour mu intéresser nit surtout ci artisanat war na mën a yomb ndax xarañte bi ndax jàmm ji fi ne ak li nga xamante ne mooy vision wu président de la république muy vision bu claire qui est le PSE nga xamante ne mooy plan Sénégal émergent bii war a doxal Sénégal fii ak 2035 ci cadre boobu la ñuy war a waxtaan ak ay artisans waxtaan ak ay partenaires pardon waxtaan tam ak ñoom ñi nga xam ne Sénégal intéressé na leen ci projet yi nga xam ne dañ koy teg pour développer projet yooyu nag yi ci ëpp solo moom mooy nan la ñuy wute ay local wute ay équipement accompagner artisans yi ba ñoom ñu mën a mënal seen bopp ba mën a gañalee marché international xam nga euh, xam-xam du doy te yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon ne wut xam-xam war naa jar nga dem ba Siin kon tey jii ñu ut xam-xam war naa mën a dex nga dem ba Dubaï waaye itam ñun am na lu ñu soxla itam mooy investissement mooy ñoo yore xam ne yor nañ seen alal gis ay programme ak ay projet ñu war ci mën def ci seen alal pour mën cee am koom te loolu artisanat nekk na ci bunt boo xamante ne lu war a mën a yomb la pour mën a naatal ñi nga xamante ne dañuy yor seen alal te bëgg ko yokk loolu moo tax ñun suñu demee dinañ leen teg seen programme teg suñuy projet wax leen ne ñun lii la ñu bëgg ñi nga xamante ne loolu intéressé na leen ñu mën cee def xam-xam alal ak euh, équipement yépp lañ soxla di jërëjëf di sant ne suñ fay dem lu ñu fay def rek artisan yee tax ci ndigalu président la république Macky Sall waaye nag ñun tey ñun ñooy kàddu artisan yi ñun ñooy seen jëwriñ di leen fa demal taxaw loolu di ñaan nag lañ fay dem yàlla ci yàlla sotti wërsëgam yombalal ñu ko ba lañ ci soxla ñun ñëpp ñu am ko